asalaamaaleykum Walf Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi ba lépp jàmm a ah, déwénati leen nag fekkee déwén baal leen ma ak baal naa leen amelu leen kenn ak sax waa naka koor gi nag kon lépp jeex na waa na woon fa woon rek comme niñ koy defee mais di leen fàttali rek di leen rappeler que ni euh, programme bi Alphie Cuisine euh, andi après ramadan bi dama bëgg ko partager ak yéen ndax ci yeneen vibes la ñuy dem waaw li kaa doon nas na ay programme am mu sàjj rek jolli bu ko defee waa Alphie Cuisine kontaan donc comme dama def vidéo bu ndaw bi pour remercier leen remercier ferme Gandiol bi nga xamante ni moo ñu accompagner euh, durant tout le mois de Ramadan gis ngeen ci seen compte gis naa ci sama compte te xam naa ni sax da di continuer euh, di ci gis seen compte ndax qualité produit ya ñëw baax donc bu ko defee nag euh, ñu dugg ci waañ bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek daal di rëgal sonn ngeen ci ginaar geek ndawal bi de waaw bu ko defee jën ñëw rek jën a ngi fii crevette a ngi fii thon a ngi fii euh, ak yeneen yoo xamante ne muy légumes yi ak fruits yi ñuy accompagner comme ni ñu koy defee saa su nekk mais yeneen rubrique yu bees yoo xamante ne Ricardo daf koy andi ci Alphie Cuisine donc ñu dem sama gars yi dugg ci waañ bi daal di rëgal nag ay poisson pané ay poisson frit yu amul fen sama gars yi nawoon fa woon rek la bu ko defee comme qu'on est toujours en mode confinement maa dindi masque bi rek waaye masque yaa ngi fi raxas loxo yaa ngi fi gel yaa ngi fi ba léegi consigne dañul vidéo bi moo tax ma dindi ko waaye bu ma paree rek daal di takkaat saw masque comme ni ñu koy defee saa su nekk sama gars yi donc jaajëfal naa leen lu ma kontaan ci yéen doyul kontaan naa ci yéen bàyyeeg ngeen ko ana waa team Christian ak euh, sama suiveurs yi nga xamante ne ñoo ci commentaire bi jaajëfal naa leen gërëm naa leen donc kon ñu dem ci waañ bi daal di tey ay poisson frit wala poisson pané yu neex yoo xamante ni tey moom la ñu bëgg neexalee bis bi jaajëfal naa leen sama gars yi allez ñu dem ci waañ waa ay jëmi sama gars yi euh, tey moom ay poisson frit wala poisson pani moom la ñuy dóor moom laa doon wax léegi sonn nañu ci ndawal bi sonn nañ ci ginaar gi léegi nag euh, ñu dawal tuuti tuuti jën daal tuuti jën ak yeneen bagage yoo xamante ni euh, yàlla baax na mën na dugg donc lii benn farine la boo xamante ni spécial friture la day tax sa ay friture du croustillant waa ñoom gàmpaas ak ñoom calamar ñoom poisson ñoo ko tax a jóg pour ñi nga xamante ne ñi ngi Espagne euh, mën nañ ko am ci commerce bi yëpp pour ñi ko ñi ko amul nag mën nga jël farine euh, jaxase ko ak tuuti chapelure euh, bu la neexee nga assaisonné ko bu la neexee nga assaisonné jën bi kase donc de yàlla mooy nga dem boori Soumbédioune wala booru marché Kermel wut fa sa ay filet de poisson yu baax waaw mi nga piment de Cayenne lañ ciy def def tuuti poobar ak sunu ay bi nga xamante ni moom la ñuy mixé tout le temps ail persil bi nga xamante ni ak huile d'olive def ci xorom moom la ñuy mixé su ma deful nokkas tout le temps damay am sama purée d'ail bi ci frigo bi parce que dafay yombalal liggéey bi donc su ko defee ñu xorom euh, def poobar def tuuti kaani soo bëggee mën nga dëbb sa nokkas bu saf moment bi daal di mariner euh, jën bi mais nag man euh, su may defar poisson damay éviter def ci marinade bu bëri parce que dafay nëbb toujours goût jën bi waa léegi su ko defee ñu mariner yëpp daal di koy euh, mélanger ba mu ba mu baax jël sunu farine bi nga xamante ni spécial euh, poisson fruit de mer la daal di ko ci wëndeel waaw wërale ko ci ba mu naan euh, humidité bi yëpp nga xamante ni da ngay am loo xam ne tooyul benn yoon nga teg sa dëwlin nag soo tegee sa dëwlin ñu tàmbali ko saaf waaw côté Soumbédioune mën nga fa dem ñu am fa sumu bu blanc bi nga am fa say filet wala marché Kermel wala sax ñi di jaay poisson nga xam ne soo jëndee sa baar wala sa wala sa sëdd ñu defal la ko ay tranche dafay changer tout le temps sunu ay mode lekkin waaw yooyu xeetu tranche wu jën rek nga daal di koy saaf ba mu croustillant dégg nga maam baxal sa pomme de terre baxal sa carotte ak sa tuuti pois gourmand fegg tuuti mayonnaise ci côté bi yàlla bu mu doon mayonnaise fait maison ah da ngay dégg jàmm de maa la ko wax salade crudité ñëw noonu fraîcheur ñëw noonu ci côté bi accompagner ko repas complet laa lay tegal de lu ko fa leneen ko fa fekk rek dessert la wala bonus lay doon waa kay tuuti pomme de terre carotte moom laay baxal euh, tey pois gourmand bi nga xamante ne du ñu bokk bokk ju temps de cuisson su ko defee ñu def ëlbati nag sunu filet de de perche yi bi perche la moom dala ma borom jën ba wax waaw mais neex na nag jën bu neex la nga jën bu weex moom dafa neex mi ngoog ñu daal di ko fay aller retour comme poisson moom jafewul toggam euh, yàggul ma nga comme li ma leen doon wax rek Ricardo am na ay programme yu bees comme man damay topp ci ginnaawam rek waa lu ngeen fi gis muy ñëw rek si xam leen ni moom moo fi moom mook ko fi wàccee ah, ok euh, di leen invité nag ngeen abonné wu waaw parce que la majeure partie ñiy seetaan abonné wuñu bàyyi ngeen loolu dañuy seetaan rek jàll ci leneen mais bés bouton abonnement bi day yàqul dara yàlla bu bësaale cloche bi su Alphie Cuisine dugalee vidéo bi nga jot sa notification laitue concombre tomate ak pomme man moom lay faxal di utiliser pour samay salade fraîcheur mi ngoog tey dama changer découpe bi def ko façon tomate mozzarella daal mi ngoog benn pomme benn tranche tomate ak euh, benn tranche concombre laitue bi ne ci digg bi duñu fàtte vinaigrette bi mi ngoog comme ñi ngi dugg ci été bi salade yi ñoom ñi ngi ñëw waaw salade yeeg yu sedd yi ñoom jus de fruit ñoom smoothie ñoom milkshake ñi ngi ci yoon bi de ñoom soreetuñu benn yoon sax ana waa tim croustillant fekk na noonu sunu ay poisson frit génn ay la mu croustillant yéey li boo ko teelee togg hmm? l'idéal mooy boo koy tàngalaat nga taal pool bi boo ci def dëwlin bu ci def dara nga teg ko ci ba mu croustillant wala nga taal four bi dugal ko ci a koy tombe na légume salaat cedd bi pare ñu jël tuuti maïs wis ci kawam préparer benn vinaigrette comme vinaigrette fait maison yi rek da ngay def sa euh, vinaigre def sa dëwlin soo defee benn kuddu vinaigre da ngay def ñetti kuddu dëwlin def benn kuddu bu ndaw mu taat xorom poobar dolli naa ci sama pure daay bi xam ne laaj bu cru bi noonu nga koy lekk ak jën bi waaw loolu lu lu bëri ngay ngay dégg comme dañ nekk ci régime ci fête lañu jóge moo tax sotewuma euh, légumes yi dama ko baxal rek def ci tuuti xorom seppi ko noonu rek daal di koy teg ci plat bi pare na de sama gaay nee naa la la mu croustillant ëpp na ana waatim croustillant mi jàll ci dégustation bi moo ci deste waaw bun nañu remercier nag waa ferme Gandiol ndax nee naa la ñoo accompagner Alphie Cuisine te sponsoring laa lay tegal waaw kay durant tout le mois de Ramadan te jeexagul sax waaw ferme Gandiol ak personnel ba fay liggéey lépp jaajëfal nañ leen mi ngoog waatim Alphie Cuisine kontaan nañ ci yéen donc mi ngoog nag sama gars yi ñu jàll ci dégustation bi salade fraîcheur salade cedd poisson pané mi ngoog nee naa la loo ci teg rek dessert lay nekk wala bonus aywa jaajëfal naa leen bu leen fàtte partager vidéo yi abonné wu et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour beneen recette comme ñu am habitude rek di ko defee fii ci Alphie Cuisine jaajëfal naa leen kontaan naa ci yéen merci beaucoup chers abonnés jaajëfal naa leen ba ëllëg rek xanaa incha allah Thank you.